jubluwaay bi tey moo doon vraiment euh, remobiliser les troupes vraiment euh, gërëm le président Macky bi nga xamante ne dafa lancé une initiative pour vraiment tegaat euh, le pays dans les rails mu lancé benn programme économique bu am solo ñu di ndaw vraiment ñu ne nag lii duñ ci bay duñ ci duñ ci seetaan duñ ci des gannaaw ci kaw loolu. vraiment ñu woo département de Pikine la jeunesse du département de Pikine pour que véritablement ñu approprier cette politique du président de la République pour que véritablement ñu mun a delluwaat dans les rails dëkk bi mën a dellu fa mu nekkoon ci wàllu économie xëy na li fi jaar dara bonu ci mais xëy na am na benn mauvaise interprétation bu nga xamante ne opposition bi ci boppam ñoom ñoo ko diaboliser ba tax yenn jeunes yi boo leen waxee waxi projet boo leen waxee waxi état dañuy jàpp ne ah lii waxi politique la waaye ñun tey jii on est plus que déterminé à véritablement renverser la tendance parce que loolu dañu jàpp ne c'est de la manipulation te ñun dootuñu doxati ci loolu dinañu gindi ndaw yi wan leen ni leen ne lii président Macky Sall teg seen i njëriñ kese yéen seen njëriñ la te bu ñu déglu ñi nga xam ne ñu ngi yàq seen xel pour véritablement bu di leen orienter si vers l' essentiel. au delà de APR Pikine nous sommes de Benno Bokk Yaakaar te tey jii li ñu fi wane tey wane ne ne tey on est tous mobilisés division bi nit ñi yaakaar wax dëgg yàlla tey ku ñëw fii di nga jàpp ne di nga gis ne loolu vraiment. ay ay xalaat yu ñaaw la woon rek waaye tey wane nañ ne on est plus que déterminé à à s'engager derrière le président de la République amul division suñu biir en tout cas ñun loolu du suñu taxawaay loolu du suñuy kaddu ñun li ñu jàpp ne Abdoulaye Timbo moom la fi yàlla teg mu war nekk diriger véritablement la coordination Benno Bokk Yaakaar te on est engagé on est plus que déterminé à travers derrière lui véritablement pour le triomphe de la de la coalition Benno Bokk parce que dañ bëgg tey wan nit ñi ne au delà de li fi xewoon ñun wane nañ ne la force principale politique fii ci. au Sénégal reste le Benno Bokk Yaakaar parce que pas plus tard que élection présidentielle yu ñu génn on a gagné avec donc ñun pour ñun Sonko véritablement c'est un épiphénomène yëngaluñu parce que jàpp nañ ne véritablement que ñun ñoo on a la force te loolu la ñuy wane nii à travers la remobilisation def na fi benn tempête bu ndaw mais terewul tey jii à travers la remobilisation wan nañ ko ne véritablement que ñun nous la force numéro un politique du Sénégal waddle, waddle.